ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di jullit ci maam Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa yàlla bii nga xam ne moo nekkoon ca makkatal mukaram di naar bu weex tàll suñ borom ba jële ko foofu sedd ci der bu ñuul mu maam Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu tëdd fii. ci yoof jàmmalaay feggoo ak géej digganteem ak doomam ju tedd ji nag di bay Seydina Amar Mandione armeel yi nekk fi di armeel yoo xam ne yi nag euh, nekkul ne mooy armeel yu jëkk yu nu daan denc fii ci kër Mame la Laye alayhi ndax bu ñu fàtte ba mu wootee moom mu nga dëkkoon fële ci ngapparu di fi nga xam ne moo féete sawu quartier Layène bii ñu dëkkoon xaw féete tuuti géej moo tax foofu la daan jógee ñëw di jullee ci fii ñu ko denc tey jullik iit korite ak tabaski wante bi nga xam ne bii génn na àdduna euh, ginnaaw bi jamonoy pes dafa am at moo xam ne mii ci la ñu sanc béréb yu bëree bare bari bokk na ci quartier Layène bi 1914 lañ ko sanc bokk na ca yëmbal ci la jóge guy tëdd ñëw fii yëmbal nekk tey bokk na ca Malika na mu jógee Malika mer ñëw fi Malika nekk bay delluwaat boori géej waaye bokk na ca quartier Médina ca Ndakaaru ak armeel yi nga xam ne mooy armeelu Médina ca Ndakaaru hmm. moo nekk ci corniche fi ci Soumbédioune hmm. kon date boobu euh, nekk lu ñu wax lane de l'érection du royaume de Dieu ndax Cambérène ci lañ ko jëlee ca fañ ko sañcoon Maam Baay la sañcoon ko fa mu tudd Kem Médine hmm. ñu indi ko fii Cambérène tudd tey moom tamit ci 1914 la. Hmm. kon 1914 dafa nekk date repère am lu mu lëkkaloo ak Nabilaay Issa Roholaye hmm. ndax dañu waxoon ne diggante ñaari guerre yi. Hmm. ci la nekk en plein apogée. ba tax na bi mu ñëwee moom Roholaye Issa moo sañc quartier bi di Laayeen. Cheikh Makhtar Lo tamit nga xam ne moom moo bind téere bi ñu wax Busral Muhibbina wa Tahisul Jaahilina ñu tuddee ko ci tubaab la vie et de Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wa salaam. moom it fi lañ ko denc. Mm. ak lenn la ci ay mag ndax ku mel ni sama baay Youssou Mbaye nekkoon kon de village yëmbal bi mu génnee àdduna maam ran woon na pour ñu indi ko fii. Mm. waaye yëmbal ñoo ko denc euh, fële ci yëmbal waaye nag bañ ko dencee rek. bañ ko dencee rek. Mm. Euh, dañ ko moom moom góor gi kii bàmmee bi dafa daal di rës ci saase bi ñu ñëwee wax ko. kii di Seydina Mame Alassane Laye mu ne. dama leen newoon ngeen indi ko fii ngeen xëccoo kaak man bi ngeen ko yooree la ko sama am jël indi ko fii. kon mu mel ni action de transfert bi. Mhm. gën la yëmbal mu daal di koy indi fii. Mhm. góor gi yoro ndee la moom tamit mu ngi dëkk fii ci boori jàkka ji. Mhm. kooku moom la maam Baye Laye alayhi salaam àndaloon keroog bi muy dekkali ji Thierno Mbaye Sylla boori 1902 moom la àndaloon mu yor ëmb càngaay bi moom bi mu génnee àdduna fii. bi ñu koy jullee ba koy indi ci armeel yi dañoo ñëw ba tolloo këram maam jaat gi ne taxaw leen ñu taxaw mu ne ku bëgg a gis euh, euh, néew bo néew buy taxe xoolal néew bi nit ñëpp mu wër ko mm-hmm. ñu ngi tudde yàlla keroog am na ñu daanu jël mm-hmm. ñu soog koo indi fii bari na ay mag ñoo xam ne ñu macha allah ku ko doon lim du fi jóg waaye kii nga xam ne mooy tubaab ba Chérif Ousseynou Laye tuubaloon ca France ñu koy tudde ko ndeyam Safiatou Safiatou Niang moom tamit fii lañ ko denc 1987 mu am ñeen fukki at ak ñaar ci tey. Mhm. moom tamit mu amoon lool mbooloo lool. Mhm. te keroog Alassane Salam dindi koo xam ne ku am kës fu la ku suñ borom may wax na keroog ne képp ku laal ci jaat gi jéggal nañ la te tubaab la boo xam ne bi ca France nekkoon. nekk une dame de contest mhm. kon bari naa ñu yàlla suñu borom wërsëgal ñu denc leen fii waaye li gën a yéeme nag. ci armeel yi bokk na ci yéen ak a gisal seen bopp set gi mu set boo fi toogee dara du la xeeñ te ndax xam armeel yu bari yu leen sañca ndooloon comme Médina 1914 fees na ba ñu indi ko fii ci yoof ci wetu cité Djily Mbaye depuis 1973 waa kon bu ñu toogee ba tey ji ba armeel yooyu di bëgg a fees tey du fees jamais dafa am lu ko waral ndax bàyyi laay alayhi salaam dane sama sama sama waa kër bu ñuy sukuraat mu ne man dama leen di gis ñu di may gis. malaakam safaan du leen du leen ñemeñ. mu ne buñ lay sang bu dee ñaar maa leen di ñetteel bu dee ñett maa leen di ñeenteel. mu ne buñ lay jullee maa maa jiitu ilimaan bi. buñ lay yóbbu maa jiitu. ndax maa xam fi nga jëm. waaye nee na buñ lay yor ci bàmmeel. nee na bu dee ñaar maa leen di ñetteel bu dee ñett maa leen di ñeenteel. waaye foofu tamit nee bu ñëpp demee maa fay des ak yow ba tax. ñaari malaaka yooyu ñu tiit ci bammeel duñ ñëw ndax neen sama waa kër ñoom duñu des ci bàmmeel mhm. ndax saa bu mbooloo mi leen indee tudde yàlla bay dellu nee na bu ñu dëddee mbooloo mu leen gën a bari gën leen neexi baat ñoo la jël yóbbu loola waral am na benn sëtub maam Limaamu Laay boo xam ne bii mhm. maam raan ñeenteel bi xalifa mooy maamam mhm. moom euh, wax na ne dafa amoon benn miraas bu maam raan doon def waaye bi mu soxlaa pour ñëw vérifier lañ doon wax ci wàllu bor diggante kooka di aji dem ji ak euh, ka nga xam ne que moo génn àdduna tudd abibatu dañ maam raan dafa ñëw xam ne moom jëmm ji nekku fi waaye dafa tàggu ji maamam maam li maamu laay ne ko dama bëgg nga delloo silma ma diw waaw mbir mi ne fiw ñu daal di delloo jëmm ji ca bàmmeel bi maam raan ñëw woo ko ci turam mu wuyu ko mu wax ka ne ko loo diw loo ameel diw mu wax ka trente fu mu nekk mu nekk bu ñu ubbee sama armoire fekk ci pochette bu ñuul ñu ubbi ko fekkee pochette bu xonq këyit gaaga ca te kooku la mu doon laaj ay millions la mm-hmm. ndax soxna si dafa amoon xaalis waaye kon gis nga action boobu ma am daan def pour ñëw wax ak néew bi mm-hmm. waaye bu dul loolu mm-hmm. bàmmeel fekk naa ko fi bu ubbeeku kooku fii nii si barab bi nii fii ci bërëb bi fële ca sama ca ginnaaw ginnaaw kooku yaa bëkk di soxna si maamraan mu nekk jigéenu jal cawlaay moo moo moo lañ fa dencoon. Hmm. bi ñu ñëwee dañoo fekk mu pëtax jal ci boppam di sëtu maam li maam laay moo ne ma jaratul ñu ziar kii fi dara nekk fi. Hmm. waaye fekkaat naa man sama paaru bopp. Hmm. benn bàmmeel boo xam ne bii damaa fekk comme ñun. du ñu calambeer hmm. dañuy jël kubéeru ub bàmmeel bi hmm. surtout fii nga xam ne suuf si dafa nooy hmm. dañuy jël planche teg ci benn côté jël planche teg ci benn côté mu nekk genre kees ñu jël kubéeru war kaa ub ko ci kaw waaye damaa fekk benn boo xam ne bi planche bi dafa sajju ma xool ci fond bi gisuma fa dara ma sukk sama oom yëkkati beneen côté bi xool ba ca fond ba gisuma fa dara te planche bi dafa bees mooy liñ ko robee yàggul mm-hmm. fënaxul mm-hmm. loolu di firnde bu wér cëng waaye la ca des sama mag bi ñu denc fii ci armeel yi mm-hmm. mille neuf cent lañ ko denc waaye dafa denc rek yaay koo xam ne kii sam suñu mbokk fii ci quartier Laayeen ab jigéenam moom sax xam naa daf ko war ci place yaayam waaye daf kaa denc ci place su sama sama sœur man te aji gas gii nga xam ne mooy gën a firndeel li ñuy wax. Mm. ñu di ko wax Baye mbay mm. moom dina la gën a firndeel lu ne ndax fii moom lañ ko dénk. Mm. yàgg na di gas bàmmeel boo xam ne bii am na kuñ fa dencoon. fii maam day génn àdduna ñu dencee place. yaay génn àdduna ñu dencaat place. ndijaay génn àdduna ñu dencaat ci même place bi. doom wala jarbaat wala sët ñëwaat ñu gën denc bi la loolu nag man am naa ci firnde yu bëree baree bëri waaye la koy mottali mu ngi bàyyi koo ci ki nga xam ne kii fii denc ku ne mooy kii gas bàmmeel yi mooy ki kii kii muur mooy kii ñoddi njoor mi mm. mooy ub bàmmeel bi mooy suul moom dina leen gën mën a dëggal mbir moom la kon li ñu wax ne maam bàyyi laa leen sama waa kër mhm. ñu fi toog mhm. te ñu nëpp ci bàmmeel mhm. mbaa boog ngay ku sàggan lool comme li maam daan daan wax naan kat am na ñu fee fanaan ak yendu te daaw ñu fanaan dañu la daan denc dañu jël la yóbbu kon loolu ak sant yàlla la ak dëggal ne kat secret suñu borom boobu ki ko yàlla suñu boromam may dafa am cër bu mu am ci boromam ndax mooy xayru xaluxlaay moom mooy seydil awalina wa seydil axirina mooy seydil kullu arabal ajam mooy seydil kaw na ni wa sàqale ni nabiyul raisul kula mursalin seydul mahfous kooku mooy njiital yonente yi mooy maam seydina limaam Mahdi alayhi salaatu wasalaam